doon dox ci diggante Zos ak ki nga xamante moo di Liss Ndiago coach Zos kii Liss Ndiago dóor ko dóor ko droite gauche la ko dóor mu wodd mais Zos bi moo nekk quatrième fois ñu koy kaawoo ndaxte ki nga xamante moo di Siteu kaawoo na ko Papa Sow na ko le ginnaaw raay Bac Seras kaawoo na ko ak tey ki nga xamante moo di Liss Ndiago kaawoo na ko Zos tamit war a mën a xool xam xool boppam bu baax mu xoolaat boppam bu baax éviter ba pare dem seeti benn neurologue mm, parce que mm, kaaw mm, yi bu bëree nii rek c'est trop dangereux. à la mhm. longue. Mhm. moo tax boxeur yu mag yi à la fin dañuy dem dañuy dem am Alzheimer. Mhm. coups yu bari ñu doon jël moo koy indi. c'est kaw yu bari baaxul. baaxul ci ci bopp. mais bu fekkee ne conflit de génération la wala choc générationnel la. il est temps nag ñoom ñu xam ne bu fekkonte ne amuñ constance ci wàllu entraînement. amuñ ponctualité ak assiduité entraînement bu sax dax comme ni ngay xëyee. di liggéey di ñëw sa bureau di monter di réviser di su ko mbër bu ko ci mënul wala athlète bu ko ci mënul na nga bàyyi. parce que entraînement constance continuité la munoo ne da ngay entraîné tey suba nga bàyyi gannaaw suba toogaat toog ba mu neex la nga ñëwaat no doo am résultat. Mhm. entraînement constance continuité mais tey pourtant tey boo xoolee corpulence Zoss boo xoolee da ngay mel ni wàññi na gis nañu muscle tamit xaw na dagg mais xëy na peut-être. mais boxe bi da ko war a defar garde bi baaxul. Mhm, gauche bi gisul ko ngi bàyyi xel bi ci droite bi mais gisul gauche ko daal. fausse garde bi baaxul c'est-à-dire entraînement su làmb xam nga bëri dafa mel ni comme MMA bëri ñaari comme ñaari discipline nga boole. Mhm. boxe ak judo la. c'est vrai. du benn du benn discipline mais benn boo ci bëgg saxal rek perte beneen. effectivement xeexu bëre du du boxe. Mhm. waaye boxe tamit du bëri xeexu mbedd di ñuy xeex du loolu Modou Lo bu lu loon booy ñaar xeexu mbedd boobu. taxaw ñu bëri ci axe boo ñaaw mën na ko bët. Ah. mais da ko indil xeexu mbedd. Mhm. di nekk ci suuf di raam di bëri di dóor di jàpp ba bët ba chute bi am. Mhm. donc yooyu yoo xam ne il faut que ñu préparer parce que lu nekk mën na la bett làmb da ngay làmbatu rek. Mhm. mais boo ñëwee da nga jéem lu doy. mais jàpp nañu ni nekk war a xamante ne moo di avenir Zoss ci làmb ji. mu toog xaar comme ay génération am ñu jokk. bu munul am mais mais presque génération am. dem na. ñu fi des ñan la c'est à revoir. ah oui entraînement. Mhm. carrière da nga koy gérer. Mhm. nekk di entraîné mi ñuy entraîné boo leen ne entraîné woo da nga leen di toj. Mhm. ñoom ñëpp ñu ngi mais constance régularité. mais est-ce que nekkul est-ce que entraînement bi nekkul ne ay ay mbër lañ signé nañ ma contrat xam nga ma war a mën a pour gars pour gars yi gis ma nii rek moo tax ma ma euh, pour gars yi gis ma ne maa ngi entraîné public bi gis ma est que loolu tamit mën a pour mën a préparer benn combat xaw ma a durer vingt cinq minutes. boo ko mën a tenir ci yàgg naa leen ko fi yàgg naa leen ko fi wax mbër max ko koy wax ma koy nuyoo passage mbër du du préparé day pare munoo bàyyi ba am combat nga jël combat bi bu desee ay un mois deux mois nga bëgg a accélérer entraînement yi baaxul ci mbër muscle bi dafa war a pare entraînement seeram dafa war a pare lu jour ji loo ko laaj mu jox la ko def programmation boo xamante ne day doy bu desee six mois wala trois mois nga am trois séances par jour après dem ci deux séances par jour am dem ci benn moment explosivité am ci benn moment rapidité motricité après nga ñëw nga da def simulation bañ a dugg ci yenn rythme d' entraînement noonu mm-hmm. pour maintenir def simulation bañ a gaañu mm-hmm. ñaata mbër nga gis à l' approche combat ñuy blessé wala mbër boo fi gis bu combat am passé lay jàpp mm-hmm. jour combat bi day ni ku yow sonn c'est vrai parce que fatigue bi mu bi diñu war a récupération la entraînement la ak programmation ak ak la programmation de l' moo lay jox conscience moo lay jox